Mame Mbaye ay ca bàkk ba jib na de yéene kaay xëyandoo sa mu di faatuk étudiant bii di Fallou Sène seen université bu Ndar la ni une bavure de trop Birima si yéene kaay bi jël xalimaam samp ab laaj nee gannaaw Balla Gaye 2001 Mamadou Diop 2011 Bassirou Faye 2014 Fallou mii dama ne ani kan moo topp ci liste bi nag ani ban étudiant moo war topp si limuk étudiant yi nga xam ne takkadeer ñoo leen war faat ndax neexul ba neex lii kat ak tayif la tuddee Malick Gakou feelu ko tewet ga nee na ngal la waay ka faat fàllu seen mii nanu ko wax ndax lu ëpp tuuru njiitu réew mu mel ni ku koy tontu nekk dana leer nag bii la yoon Macky Sall nee na du sedd benn yoon nanu ubbi ab l'enquête teg loxo ka sox bal ba faat fàllu seen l'observateur nii étudiant la woon de nekkoon deuxième année lettres modernes ay waajuram sa jurbel xuus nañu sig sa ngéem seen doom bal lanu ko sox mu daanu colonel Pape Souleymane Cissé dama ne lii kat mooy saafara gu mujjee doon ak jàngoro loolee moo metti étudiant yu Cheikh Anta Diop ñoom it ñu génn si tali bi doon sa kon rek jàmmaarloo takkadeer ya lu mu gàtt-gàtt ñetti say oto taal nañu ko fa réew mi quotidien nii yokkal ndax sa ndar taal nañu fa benn bus kër maritaw ñaan ñu caxat-caxatee ko étudiant yu Cheikh Anta ak yu Bambey jàppale ne nii rek la tontoo takkadeer yi waaye it nii rek la feeloo étudiant yu Ndar sa goxu Mam la mu gàtt-gàtt de bilang ba diis na kenn moo ca na benn soxna benn te la tax mu faatu fanweeri dërëm képp nag l'enquête ni un mort trop te bii la yoon nag gu nekk pataar gi ci boppam la faat loolee moo tax waaye politique yi ne mbir nag mu ngay bëgg jéggi dayo te lii dafa war a dakk PDS ci Sud Quotidien nee ñu wax ji wax ji mooy président Macky Sall na tekki ndombal tànkam na abale démissionné acte bu Abdoul Mbaye grand parti bu Malick Gakou FSDB ju Cheikh Bamba Dièye ñetti doom bi pend yi ñoom seen bëgg a enquête bi nañu ko ubbi lii ci boppam mooy fa war a jeex te lëf lii nag li ci war moo di rek ñu bisab l'enquête indépendante le quotidien ni jëwriñ bi ñu dénk takkadeer yi Augustin Tine étudiants yi la jàmbaaramuk tuuma de nee na yi si boppam ñoo song gendarme yi topp leen ba ñu sës vox populi nee na la koy firndeel moo di rek ñaar fukk ñoo jëlay gaañu-gaañu si jàmmarloo gi waaye nag fukk juróom ñett ya ñoom ñëpp dañu dee takkadeer takkadeer ngir ko gisee li ngénte tubaab ah kay waaw bëgg dugg resto te doo dagg waa tamit ku sa koppar tëw a génne nooy daggee ticket la étudiants yi kon doon ñaxtu fàllu seet daal di saa mujjee faatu kurus ak ah, rectorat ba ñu daal leen def doom vox populi ni kër mari ñaan ci boppam dañu ko caxat-caxatee loolee la laas nag dëggal ba noppi yokk sa kon kàddu yi jërum ñu dénk wàllum l'armée bi nee na ba jiite woon opération ba dafa demoon ba sës nag dos au mur demoon ba xam ne tamit si laas quotidien jël nañu kon ñaari fan banque sa seen i yoxo le soleil nee na jaru ko woon de ndax njiitu dem président Macky Sall jël na dogal sàkku na nag ngir nag ñu bisaab l'enquête su ko defee nag mbir yi leer ñu teg loxo kat sox bal ba mu ngook lii la sàll ngaari wax kon ma ne dig daje si yeneen i kaay jaa ngeen jëf